mais bi may ñëwee ma fekk dakaar yëpp nekk ay ruines dàll yi ne woon pavé yi ne woon ci suuf sa dañ ko dàllati yépp ñu jóg ko ay jóg jóg jóg jóg jóg ma ne ah waa lii lu mu firi ñu ni ma wax la fii ngeen jëm taxawaay dëgg la laaj ndax sabotage bu ñu mën a def ba yàq seen liggéey dinañ ko def looloo tax bi ñu jaxasee résultat yi xam nga man dafa am lu may neex xam nga séq ak nit mu toog fa mu toog yow nga toog fi nga toog mu wër la ni yabu la xawma ñun ñi ku ñuy yabati waaye du Macky Sall waaw preuve bi mooy bërki démb bi muy ñëw ni day seet fii seen xalifa bi ñemewul jaar fii sama buntu kër ndax ni dafa ragal bu fi jaaree ñu yuuxoo ko ma ni ko man kenn yarewuma loolu waaw waaw je ne suis pas indiscipliné waaw bu fi jaaroo nit moo xam waaye ngeen xam ni seen responsabilité fi ngeen jëm li ca aju bare na ay assemblée générale moo ci gën a tuuti assemblée nationale moo ci gën a tuuti waaw mais nag ci mbaaxu yàlla fi yegg mille vingt quatre laxasu leen rek ñu laxasu lu ngeen foogul rekk def nañ ma ko jóg naa fii di dem voyage marok ministre de l'intérieur mais de l'intérieur laay mën a wax mais ministre de l'inférieur damay wax ni ñett fi ne fii ci réew mi waaw Maguy Sall ministre de l'intérieur waaw ak conseil waaw de la démago de la démagogie ma xam ni ñett yi nag réew mu ñu séq ku bëgg a defar réew ma bay boo nga taxawat waaw ñu téléphoné ministre de l'intérieur bi nekk Maroc pour ñaan ko bu ma ñëwee foofu ci aéroport bi ñu arrêté ma foofu ma ñëw ñu ubbi sama passeport ni ma passeport bi validul te passeport bi tampon aéroport bu Paris mu ngi ci passeport bi ma xam ni bu validul woon xanaa ñoom bala ñu koy gis xanaa waa Paris gis ko ba noppi te seen cachet mu ngi ci ñu yendul ma ca aéroport ba toute la journée di dugg ak génn ministre ba mujj ñëw ñuy dugg ak a génn yu kenn xamul benn comédie boo xam ni ma jékki-jékki ñu ne ah, comme léegi passeport bi validul dañ lay jël delloo lu sa réew noonu ci policier yi ne woon ci aéroport bi am ci kenn ku xool ba mu wóor ko ni ñi muy ragal kenn nekku fa mu def ma nii ma ñëw mu ni ma ça vient de chez vous lii xew te seen réew la jóge ñun nekk ci biir brigade bi am na ñu ci d'accord ndax deux bu jëkk bi mooy ñoom du ñu am seen problème ci seen réew di ko régler si fi bu ñaareel bi mooy marocain yi nekk foofu di fa liggéey kii nii buñ ko fi arrêté fii ñooñu ñëpp seen bakkan a ngi ci xottu gerte moo tax ñu ni leen ñun duñu ci d'accord pour ñu di ko arrêté bu dee dangeen ngeen dem nag ba sës xamu leen lu ngeen di def dugal leen ko ci avion bàyyi ko mu dellu ci réew moom mooy xam lu muy wax ak ñoom ci passeport am ngeen note boobu ñu jógee ca ñu baax ñu tedd ñi seen mag war a jóge Algérie pour ñëw Sénégal mu wax ni dafa yittewoo daje ak al mustarshidin wal mustarshidaat bu sañoon ñu ñëw recevoir ko foofa ca al irshad ñu préparé visite ba invité ñi ñuy invité ñëpp fekk mu ni orchestre daayire bi façon bi muy defee musique def ko neex bu sañoon bu bu ñëwee ñu indil ko orchestre bi ñu defal ko ay morso te ñu enregistreel ko ko pour mu yóbbaale ko ñu préparé yépp defar ba ñu ni dimanche la war a ñëw ñu xëy xëy rek moom it mu daal di téléphoné moom shérif bi daat ni ah ngeen bal ma àq de mën a ñëw ndax sunu ambassadeur daf ma wax ni ma le gouvernement algérien ñoo ko woo téléphone ni ko shérif bi warul dem foofu maanaam warul seet si Moustarchidine te kon nga xam yëf yi fan la jóge ñu téléphoné ma wax ma ko ma ne amul problème moom moo ñaanoon pour seet suñu pare woon nañu pour teral ko mais comme noonu la demee yëpp at problème ñu daal di arrêté yëpp cadeau yi ñu jëndoon yépp pour moom ma ni ñoom oustaz Cheikh denc leen ko ba gàmm bu gàmm jotee dina am ci ay bokkam yu ñëw ngeen jox leen ko ñu yóbbaale ko donc boobu di beneen ngeen war ko noté ma toog am sama benn nit bu nekk ci service secret yi ni ma jamono yii ma ne ko am ah, mu ne ma bul dem Mauritanie ma ni ko lu tax mu ni ma gouvernement bi fii dafa am complot bu ñu comploté te mooy am na ay colloque yu ñuy def ca Nouakchott dinañ la invité ca colloque ya mais bul dem parce que li ñu bëgg mooy buñ la invité ba nga dem ca kolog ba am na ñu ñuy demander pour ñu enlever la te bu buñ la enlever fii ak deux mille vingt quatre du ñu xam fuñ la dugal. waaw ma lay laaj ana lu xew ñoo am conférence Gambie préparé sunu conférence yóbbu sunuy matériel ba mu des quarante huit ñu jékki-jékki ni Adama Barrow def na discours nee na interdire na bépp événement bu war a am fii yépp te fekk boobu dafa ñëw Dakar ba jóge fii fa lañ ko joxe instruction yi ba sunu matériel ak yëpp dañuy mujj defaat ko ci ay mark pour ñu delloo si ko Dakar bu ko defee yooyu nag yu yu bare yooyule ba fan yële passé sama mbokk mële woo ma téléphone ni ma Mahmoud Saleh nee na def la soxla ma ni mbokk mi boo gisee Mahmoud Saleh nga wax ko ni ko maa ngi koy jaale colonel Malick Cissé bi mu daan àndal di ñëw fii te bi mu faatoo ba léegi jàllewuma ko loolu waxin la ndax ku toll noonu ci yow mu daan ànd ak moom mu faatu te talul sax jaale la ko ba noppi ni def la ñàkk fay daa ngi ci di ko di ko tontu waaw dama xam naa affaire ba demee yépp ma defe ni nag yooyu yépp bu ñu ko seete capitaine mi am na ci wàllam dafa ñëw keroog sax ak nervosité bu nga xam ni dañu mujj di ree sax mu ne ma man nit ñi yëg naa ne ndege dof dëgg lañu ma ni ko ah lan la mu ne ma ndax li ñuy cherche mooy ñu jël ma man dóor la dóor ma ci sa kaw sa njabootu bopp waaw yooyu yëpp buñ ko boolee yëpp te bokkul ak yu sew sawaan yi yu sew sawaan yi mooy joxe ay ordre à ce que ñun quartier yi ñu dëkk yëpp ñu di ko couper tout temps di ko couper tout temps ci façon bu nga xam ni appareil yi nga yor yëpp mën a yàqu démb laa ci mujj yàqule benn appareil fii nii ci Tiwaawoon lu bokkul ak Dakar ma defe ni nag yooyu yëpp bu amee te am ay nit yuy defe ni ci seen xalaat mooy waaye juboo juboo lëg président ma ne ban président dafa tolloog ci wàllu diplomatie am na nu ngeen gisee yëf yi te sëñ Cheikh dafa am baat bu mu wax man noonu laa déggee seen action sëñ Cheikh nee na nit bu la tooñee te foo ko gis dawal mbéj nee bu fayu jotee du neex bàyyi ko ba fayu jot rek mais bul def foo ko gis dawal mbéj jaru ko waaw bési ngi ñëw incha allah yi ñu naqari woon yëpp sunu gannaaw lañuy ñuy féete incha allah waaw bu ko defee kon nag ah mu ngi guddi sax bi